sama xarit sa jabo léegi nag waay waay waay waay waay xale fi ma génn tey nooy na waay man daal dañuy diñ ne dama def détournement dañ maa jox xaalis ma détourné xaalis bi ñoo toog di leen xool ci kanam dinaa ko leer balaa émission bi jeex Youssou Ndour ngi seetaan yéen a ngi déglu waaye dina leer ku ñuy seeti kan la génnal ma kii Mbaye Ndiaye <laughs> Mbaye Ndiaye nag démb dafa demoon ci banlieue bi nemmeeku ci ñi nga xam ne ñoom am ci mbënn ba boo liiree tey ci ay journaux ci of yi bind nañ ko Mbaye Ndiaye bi muy wax dafa ne man man premier ministre kon ndax dafa juum war na koy yaakaar war ci ay gént la nekkoon waaye nag xamal nañ ne Mbaye Ndiaye ba muy jógee la ko fa jëlee ndax ay yuuxu la war ay xeer la nañ ko topp maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen gërëm di leen sant wax dëgg yàlla président Macky Sall bu fi yebalee ab délégation bu mag pour ñu ñëw seet leen fii nga xam ne ngeen nekk ci Gunaas pour rek mën na leen jàppale waaye tamit xamal leen li nga xam ne wax dëgg fa yàlla mooy suñu taxawaay ci gouvernement bi nga xam ne moom laa moom la nekk man premier ministre bi nga xam ne nag maa fi taxaw tey Mbaye Ndiaye li ma leen bëgg xamal mooy nit day dëkk ci palaasu nit ndox dëkk ci fi nga xam ne moom mooy yoonam du ko bàyyi léegi comme que tam ngeen ko ba tam tamal ko ba tam ko te mënu leen ko bay ndax ñi nga xam ne ñoom laa fekk fii fi ma dugg seen kër yëpp yëpp amul kenn koo xam ne taxaw na fi kenn kenn rek ku ne ma defu fi ñeenti at am na ku ne def na fi juróom at waaw mën a dëkk ak ndox juróom-ñetti at kay buñ la jëlee fii mun nañ laa yóbbu ci géeju yaraax gi ndax chinois yi ci boppam nee nañu ñoom seen biir dëkk ca Chine am na ñoo xam ne dañuy dëkk ci kaw géej gi ñaar ñoo mun a am wa ilaa ngeen dellu fi ngeen jóge woon wala ñu jëlee leen yarax wala ñu dule leen Tëngéej wala ñu jóobu leen Cambérène géeju parcelle bi war wala géeju géejawaay bi sampal leen fa ay bant defal leen ay nekk ci kaw ngeen nekk ci kaw ndox mi ne ci suuf comme que tam ngeen ko kay te bëggu leen fii jógee loo tam ba tam tamal ko ba tam ko kay di ngeen koy def ndax am na loo xam ne kat yéen a ngi koy caaxaanee barki léegi dañ ma woon xale boo xam ne ñu ne bi muy juddu ci ndox mi la juddu am na fukki at léegi ñu ne mënul dox lu tax mënul dox buy dox day mel ne kuy fee loolu lañ ma woon léegi man ne xale bi jógal dox xale bi dox naan naan nii mel ne kuy kuy fee ndax ku juddoo ci ndox kay booy dox dégg naa nii lay def xam nga ne loolu bu ko naree def dëkk bi yëpp ñëpp di def nii dañ naan Sénégal les gens ne marchent pas les gens volent wala les gens nagent léegi nag man en tant que premier ministre man may Ndiaye li ma leen bëgg xamal mooy buñ ko ngàccee ngàcc ko ngàcc ko popp ko pomp ko ngàcc ko ngàcc ko pomp ko pomp ko ngàcc ko ngàcc ko du tax ndox mi ñëwaat fii ñaar ñoo mun a am kat mooy ngeen génne ci ndox mi ñu yóbbu leen ci ndox wara ngeen jóge ci ndox mi dellu seen kër mënu leen ko nag ah catastrophe nag buy ñëw nag kenn mënul wax yàlla kañ lay ñëw ak kañ lañ koy ngacc waaye nii nga ma gisee ne waa gunaas di doxee buñ leen fi bàyyee ngeen dëgër bopp toog fi boo leen fi defaatee juróom juróomi at xale yi nga xam ne mbënd bi fekk ne leen fi mu am fukki at ak juróom ragal naa dëkk bi yépp bu ñuy dox dina changé ndax koo xam ne booy dox da ngay mel ne jën waa gunaas kat ñoom ñëpp bu ñuy dox dañuy mel ne jën kat ndax Woré Sarr ci boppam bi mu may ñëw di ma wan yenn koñ yi ci boppam nee na ma xale yi ni ñuy juddoo fii sax ba koy doxee moom daf ko yóbbaale nu ñuy doxee ñu ne xale yi dañuy naa xale yi dañuy xale yi dañuy mel ne yaboy xale yi dañuy dox di naaw di mel ne mel ne yaboy <laughs> xam nga ne wax dëgg yàlla bëgg lu yom warul tax ba booy juddoo ci ndox màggee ci ndox te mënoo dox ci suuf ci ndox rek nga mën a dox am ñoo xam ne bu ñuy dox te ki daal dañuy dañuy mel ne jën boo xam ne <laughs> loolu nag day yàq deru réew fexe leen daal ba ngeen ci ndox mi dem ci suuf si war a ngeen jóge ci ndox mi dem ci géej gi waaye Macky Sall mënu jox ku ne kër ba pare na fii ngay dëkk ñoo la amel sa lii ak munta am bëgg lu yomb nag weesu toog ci ndox kon en tant que premier ministre man nga xam ne maa jiite délégation bi nekk premier ministre su ma demee dinaa na Macky ñii dañu bëgg lu yomb torop torop torop torop te ku leen fi bay fii nañ fi nar a dee duñ fi jóge toog leen nag ku ngente ci ndox tudd ci ndox def tour ci ndox anniversaire ci ndox li la ndox di def doo ko xam waaye xam ngeen ne tey ñu bari ngi doon xaar ma jooy li tax may jooy doo lañ ko gis te ndax mbay fu la mbay fayda <laughs>